mbokk yi am yaakaar ni que vous passez d'excellents moments euh, sur nos antennes sunu gan agsi na mu ngi ci plateau bi tey nag am nañu mbégte euh, dalal ci plateau bi mbokk yi ki nga xamante ni moo di Omar Sow euh, nekk ministre conseiller nekk itam responsable politique APR fële ci yëmbal ñu ngi lay nuyu di la ziar c'est un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu ñu ma bokkal plateau bi di am plaisir encore ñëw fii 7TV bokk yéen plateau ñu ñu ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin Euh, dalal ak euh, jàmm ñu fas yéene waxtaane nag euh, ay questions yi nga xamante ni mën naa ne c'est des questions d'actualité ponk bu njëkk bi ñuy waxtaane dafay ñeel dialogue bi nga xamante ni daanaka démb moo nekkoon ñaareelu bés bi commission yi amoon liggéey amaloon liggéey bi nag jàpp nañu le 2 juin pour la tenue des élections moom la ñu proposé sama question mooy ban xalaat nga am ci li nga xamante ni moo di dialogue bi sachant que candidat yu bëri dañ ko boycotté waaw man d' abord ku xam moo xam ne je suis un report parce que mosuma gëm ne report euh, Sénégal toll na foo xamante ne dañoo war a reporter ay élections c' est ma conviction personnelle je le dis partout euh, parce que lu tax ñu reporter élection Sénégal tollu woon foofu parce que tey l' avenir nous a donné raison nous les anti report mooy lan dañoo neewoon ne dafa am guerre bu ñu guerre conseil constitutionnel. jàpp ne am na candidat yoo xamante ne dañoo guerre surtout demoon nañ sax ba viser directement notre candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ne moom moo guerre conseil constitutionnel je pense que début début PDS loolu lañ doon wax ñun aussi ñu dem jàppale leen ci mais ñu dem ba ci biir jàpp nañ ne France daa dëkk den amul lenn loo xamante ne tey mun nañ ko prouver parce que début bi newoon nañ yor nañu ay audio yor nañ ay ay ay photo yor nañ ay image yor nañ ay vidéo Euh, mais après malheureusement mu demee ba ci biir ñu gis ne c'était un un un un un loo xamante ne c'était un acharnement sur une personne c'était un acharnement pour sur une institution bu mu ni conseil constitutionnel ñu demaat ba ci cëppaandaw ga mm-hmm. euh, assemblée am lu mu voté muy yokk prolonger mandat président de la république le même conseil constitutionnel bi ñu newoon daf daf ñu euh, dafa ger mm-hmm. même conseil constitutionnel moo xaatim ne këyit bi baaxul kenn mënul yokk mandat président kenn mënul def lii ak lii ñu demaat ba ci biir conseil constitutionnel ne ci biir loolu ne président de la république gis date adéquat yoo xamante ne pour que ñu mun a dem élection mais dama jàpp ne bu nekkee ne léegi ñu demaat ñu ne dañuy dem dialogue ci biir dialogue bi man maa ngi woon premier journée bi mm-hmm. mais lu ma ci gën a lu ma ci gën a mettiwaat mooy lépp lu ñu mënta wax dañu ne après dañuy demaat waat ci conseil constitutionnel fekk ne conseil constitutionnel boobu saaga nañ leen taxe nañ leen de tous les noms wax nañ lu nekk mais ñoom ñi ñi dajale ci salle boobu di waxtaan ñu ngi demaat delluwaat ci conseil constitutionnel pour pourtant le conseil constitutionnel avait demandé que ñu def élection le 25 février. Mmh. pour man c'est la le doit on doit camper le débat parce que li ma koy wax toujours mooy euh, nit booy tax booy wax sa bakkan warulaa tax koo wax. parce que sooy wax tey ñun ay xale lañu on est des jeunes on est des politiques des acteurs politiques mais li ma jàpp mooy tey ak on a notre part de responsabilité ci histoire Sénégal ci tournoi histoire Sénégal cela n'enlève en rien notre engagement envers le présent cela n'enlève en rien notre loyauté et cela n'enlève en rien suñu gëm-gëm mooy idéologie mooy en tant que des démocrates en tant que des républicains pour man taxaw seetlu ñu demaat ba ci biir dialogue lu ma ci gën a def reetaan ñaari mbir on nous parle d'amnistie. Mhm. mbir bu reetaanlu la. ah da nga jàpp ne dafa reetaanlu dafa ay caaxaan la ay caaxaan la. d'accord beneen mbir bi moo si on nous parle de l'ouverture des candidats muy Karim Meïssa Wade mën a bokkaat. Mhm. donc ça veut dire bi dañoo repousser élection yi pour Ousmane Sonko ak pour Karim Wade donc pour man jàpp naa ne Sénégal moo sut Ousmane Sonko Sénégal moo sut Karim Wade parce que tamit toujours je rappelle l'histoire en 2019 élection présidentielle yi ñu mujj dem on avait 27 candidats qui ont déposé leur dossier il y a eu 19 recalés pour premier tour et au deuxième tour nous avons eu trois recalés te pourtant ñoom Malick Gakou ñu bëri tey ay Ousmane Ngom ñu bëri tey ay recalé ay recalé woon élection bi pour pourquoi te pourtant Karim Wade mi recalé la woon xalifa Sall mi recalé recalé la woon. Mhm. et pourtant dem nañu élection. sur 29 dépôts laa la wax de sur 29 dépôts y a eu 22 recalés en 2019 et il y a pas eu ce tollé et il a pas eu tout ce bruit il a eu de report et c'est les mêmes conditions de rejet ce sont les mêmes conditions yooyu ñoo xamante ne tey moo teguwaat conseil conseil tegaat ko ci ay ndodd nit ay ak waa DGE ay clé inexploitable ay ay parrainage yi ëpp benn sax rejeté nañ ko fi te boobu le candidat Macky Sall moo doon dem mais dañoo teg juróomi nit mu jàkkaarloog moom pour man yaa a des non-dits ce report là. lan nga jàpp ni moom mooy les non-dits. les non-dits euh, am na loo xamante ne yaa yaa y a des deals entre Sonko Sonko et notre camp que gis ngeen lu ma wax am na ko ko révélé Cheikh Yérim wax na ko tudd na ci ay nit mais man lu ma ci gën a jàpp parce que mënu ma bu ma déggee la nom de Ousmane man mi xam Ousmane Yara j'ai mal. Ousmane yaraa ba dumee ba di dugg suñu république ba di dem Cap Manuel di seeti Ousmane Sonko di ko di dox dox bi di dugganteeg président benn institution ñoom ñaan ñuy dox ak ay fonctionnaires ñuy dox dox bi Ousmane Yara na ma yàlla baal mënul bind turam Ousmane Yara na ma yàlla baal c'est seen c'est une persona non grata aujourd'hui en Guinée parce que bokk na ci tey problème Guinée bokk na ñu ci bokk. waaw nee nañ c'est yàpp c'est pas un diplomate Ousmane Yara bu la neexee tey guddi mën nañ dem ci casino yi moom la kan mooy Ousmane Yara. ah ben c'est ce que tout le monde. non je te non interdit d'accès en Guinée Ousmane Yara est interdit d'accès au Mali Ousmane Yara actuellement même il a des problèmes avec le président togolais ci télé laay waxee. Ousmane Yara même au Nigéria président bu ñu wax bi bu mu faloo la fa gëj ñeme mu fa dem. waaye léegi nit kooku noonu bu ñëwee di yaataa yumbee ci suñu dëkk. kii la kan mooy responsable ah, en plus mu ànd ak parce que en plus mu ànd ak un colonel Touareg un ancien colonel du Mali. et on parle de la situation géopolitique dëkk bu mu dem tàkk na dem na Guinée tàkk na dem na Mali tàkk na. mu nekk noonu amul wër xam xam xam boobu fët bi nag bu ko imputé li xew Guinée non imputé wu ma ko non je dis non imputé wu ma ko non dama ne wu ma ko faute bi mais ñi am accès ba dugal ko ci biir système bi mu jaar ci président institution bu bu mag mu nekk ci réew bi ñëpp xam nañ ko parce que combat la ci biir combat mooy lan tey am na ñoo xam ne lorsqu'ils ont vu venir Ousmane Yara amul bunt du muy jotee président Macky ci la ñuy jël def deal woo Alioune woo pour pour woo Pierre Goudiaby Atepa woo ñëpp pour mën a ak Cheikh Yérim Seck bien sûr pour mën a valider loolu noonu man personnellement yaa yaa yaa yaa sept mois de cela am na ku ñëw gis ma pour pour parce que Ousmane Yara il était fréquent chez les femmes de Sonko man quelques mois yaa a des gens qui sont venus me voir pour que ma dox ma ma dox rôle boobu. mais je me il était fréquent chez les. de Sonko. ok may wax dama koy xam. beneen bi mooy parce que man il y a quelque temps on était venu me voir pour ça mais man damaa gëm ne Sonko s'est battu avec l'état boo xam ne ci laa nekk xeex ak moom ñi jël ko jiñ ko lu ñu koy jiñ man duma ma delluwaat ci ginnaaw di négocier ak moom parce que comme l'a di lu ma gëm mooy dañuy dem procès bu nekkee li ñu koy jiñ defuñu ko defu ko ñu setal ko mais li ñu koy jiiñ am na am na ñu ko def ñan ñoo taal université yi ñan ñoo taal bus ñan ñoo taal station Total yi ñan ñoo taal commerce yi ñan ñoo rey nit ñi c'est des Sénégalais qui sont morts sont nos parents maintenant on veut prendre tout dans un rapport jël lépp dugal ko ci ab sac jël ko sànni ko fale mel ni amul kenn ku def amul kenn ku def pour man nous avons failli quelque part mooy lan nit ñi topp nañu seen xol mooy seen xeexu biir APR. xeex boobu moo indil Sénégal tey li tey Ousmane Yara xeex bi dinañ ci ñëw. voilà Ousmane Yara ñu des ba tey ci premier point bi leneen nag waaw ñu ngi ngi ñëw ci premier point. toujours waaw ci dialogue bi. mooy lan 2019 président Macky Sall bu muy dem élection sur 29 dépôts y a eu 22 rejets y a eu 5 candidats et nous sommes allés aux élections aujourd'hui nous sommes à 20 candidats 19 on on 20 20 candidats au départ on nous parle de report. Mm-hmm. donc réellement le problème te lu ñu doon wax gisuñu ko pour man dialogue bi. dañoo dialoguer pour leneen loo xamante ne tey du lu jëm ci wàllu élection mais c'est des dialogues yoo xamante ne ça ne pas tey euh, l'avenir de ce pays. très bien alors euh, fi mu xaw a daanelee avant fi mu mujjee daanelee ni foofu laa mën a tàmbalee. Mhm. Euh, ce dialogue entre Ousmane ki muy wax ak ak Ousmane Sonko ak Macky Sall. Mm. ni Ousmane Sonko. ni un membre de son parti nekku fi pour défendre boppam te ku nekk kaso aussi dina yomb trop pour ñu waxal la parce que tu n'as pas les de te défendre certainement li ngeen di wax ni les les gens yi mu bokkal dinañ ci indi ay leeral ba xam ndax c'est Ousmane Sonko qui deal ou c'est Macky Sall qui cherche à lui parler et que moom muy rejeté tout cela dinañ ci am lu ñu leer parce que nu mu yàgg yàgg dina génn bu génnul aussi dina dina waxloo ay nit yu ñu ñu ñu édifier ñu donc euh, pour rester toujours si si le, le la présence de cette personne là qui fait le tour entre la prison Cap Manuel ak le palais mais lu tax mu war leen bett yéen mi ba ànd ak ki Sall ces genres de pratique parce que yow da nga ni nga décrire la personne c'est comme c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable c'est comme si la personne n'est pas fréquentable en tout cas bu ñu la déggee ni nga ko ni nga ko décrire donc c'est c'est pas quelqu'un boo xam ne Macky Sall war na affiché wu ak moom wala war na mën a am yenn jéego yu muy def ak moom pourtant c'est le même Macky Sall qui s'est affiché avec ku ko doon ñi ko doon saaga du ku ko doon saaga sax ay nit yu ko doon saaga donc image boobu noonu bu muy am avec le gars là il a toujours eu parce que moom bi mu yegg see takk il a pris le plus grand insulteur du du Sénégal mu nommé ko à à un poste clé au niveau de la présidence de la République muy muy muy muy muy Souleymane Jules Diop donc euh, nit dem sàccee fele ay affaire ñëw nga fotow ak moom. kenn saaga la saaga say wayjur say descendance nga ñëw photo ak moom mu ñëw bokk sa parti nga photo ak moom di lii moom c'est-à-dire que moom mii ci boppam institution bu mu jiitee moom moo ko njëkk moo njëkk a ternir image bi ba pare donc le que le am osé ñëw di dox ci digganteem alors que yaa a des gens de la paire yu nekk foofu war a mën a dox diggante boobu yaa a notable au Sénégal yu responsables yu mhm. war a mën a dox diggante boobu lu tax ñooñu doxuñu diggante Parce que au moment où les gens lui disaient arrêtez-le, il n'a pas voulu s'arrêter. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va venir pour dox ci digganteem ak ak ak ak li mu bëgg. Maintenant bu fekkee deal am na les Sénégalais attendent de pied ferme parce que nag muy Ousmane sonk muy Macky sal kenn moomul réew mi. donc bu bu ñu diilee aussi au grand Idrissa Seck looloo tax ba tey mënul am benn benn gëdd ci sénégalais yi parce que euh, sénégalais doful am na dal am na yar am na patience mais il est loin d'être un, demeuré ba nit di def sa sa bu ne njom bu bu ne bu ne weng après ñu ñëw dénk la réew mi les Sénégalais vont attendre de voir maintenant man fi ma question bu ma bëggoon poser rek par rapport mhm. ak ak ak li ngay wax nii junju nga ko léegi ne euh, querelle interne yooyu euh, moom moo waral ñu ñu ñu am dialogue bi mais ci ci querelle interne boobu laa la laay poser position est-ce que tey le fait que Macky Sall euh, qu'il ait recours à quelqu'un boo xam ne yow jàpp nga ne c'est pas quelqu'un de fréquentable nekkul aussi benn benn déception envers son camp wala ñi nga xam ne ñoom la àndal ba manque de confiance rupture confiance boobu nga xam ne amatu ko ci ñoom ba loo xam ne yittal na ko mu préféré dem ut ay Pierre Goudiaby ba nga xam ne nekkul ci kawam ay ay ay ay ay yeneen nit yoo xam ne kooku moom ay waxam sax kenn mënatu ko wax pour mën ko li et loolu aussi. comme ñan comme kan. Pierre Goudiaby Atepa. Euh, Alioune Tine. yow yaa leen yow yaa leen fi cité ak ñooñu noonu. allez-y voilà donc. en tout cas mu bàyyi ñi nga xam ne. Euh, ñoom la man li ma li ma li ma lan ma wax tey mhm. président de la république il peut se photographier ak ku nekk fekk xamu le cas de Californie peut-être xamu ko aw man avec Kitty j'en ai fait un poste xamu ko parce que président de la république peut-être yow temps bi nga am di seetaan ay poste maintenant peut-être là-bas je peux am na problème peut-être il n'a pas été avec des politiques dans ses voyages wala yenn personnes yu mu war a nekk. su fekkee dafa il n'a ñu ne moo tax ma ne la dama xam nga tey. ça veut dire que xam te dis ah. jamais non il n'a pas. am na ñoo xamante ne defuñu seen liggéey kon sinon. non dama ne xam nga il n'a jamais voyagé seul non. ñu bàyyi ko mu tontu allez-y xam nga dama lay wax man man ay waxi man man lu dul dëgg bu ma du fi toog parce que du ma du ma gëmut. Mhm. parce que li ma gëm mooy li may liggéey di di ko am ah. maa koy liggéeyal sama bopp donc mhm. pour man j'ai été toujours coran pendant mes douze ans de pouvoir avec Macky Sall et je reste fidèle à Macky Sall parce que je suis courage. avec lui donc je reste fidèle mais lorsqu'il s'agit de dire non je di non mhm. euh, pour tes voyages il y a souvent mais il y a des yow aspect moo protocole mooy par exemple tey am na ñoo xamante ne tey bu ñu ñëwee di dugal nit protocole mënu ci dara donc on peut pas prendre la faute au protocole souvent la sécurité aussi mënuñ jël seen faute parce que c'est des militaires yoo xam ne xamuñu xamuñu xamuñu yenn yi jàpp nañ ne benn sénégalais buy photo président président souvent bu ko gisee day bàyyi leen ko ça pour man ça c'est des fautes yoo xamante ne ça nous a ça nous a posé d'accord loolu yëpp lu ko waral mooy à un moment donné le président aussi s'est écarté de son entourage proche mooy des gens aussi qui le parti des gens qui qui qui sont avec lui le temps encadré que des des des diplomates des ñoo xamante ne tey peut-être xamuñu diw xamuñu diw xamuñu diw xamuñu diw c'est dans ce voyage loolu la parce que début bi daan na yóbbaale ay politique daan na yóbbaale ñoo xamante ne. je ok ok parce que président quand il sort. quand il est à l'étranger. il est facilement mën nga ko approcher. approcher facilement parce que c'est normal c'est il est humain. Mhm. aussi c'est quelqu'un aussi qui aime toujours taquiner qui aime toujours. discuter Ngom qui l'a reçu au palais. c'est pas c'est il l'a reçu au palais le le faussaire là il l'a reçu ah, au palais. je dis que mais mais li ma ko ci dugal dama ne. ki ko indi ba mu recevoir ko. amaana jamono jooju président xamul sax kuy Djibril Ngom je te parle en fait. Président, les gens le cachent beaucoup des problèmes comment nañu war a fayee les nos dettes intérieures chaque mois dañu war a couper injecter courant bi est-ce que war na daw fi est-ce que c'est un pays mm-hmm. mais man li ma jàpp mooy tey y'a une faille ba ba loolu mën a am tey ba Ousmane Yara mën a pénétrer ci ci ci biir entourage président fu mu jaar parce que man personnellement je le connais mais man personnellement je l'amène pas chez moi je ne vais jamais l'amener chez moi pour me fréquenter parce que je le connais xam naa ko il il pratiquement mooy de un mois mais bu ma demee ba gis ko ba ba xam xam sama principe ak sama style non ma nekk ak moom parce que xam naa li tax parce que xam naa ko parce que man. là vous rentrez Alors, dans le jugement nañu nañu génn ci Ousmane Diarra parce que foofu laa jëm foofu laa jëm. Mhm. wax na ne kii man fi ma nekk man dama jàpp ne état bi ma nekk ak Macky bi ma nekkal am na ñoo xam ne war na ànd ak ñoom wala waruma ànd ak ñoom c'est pas des jugements de valeur. mais man jugement pur jugement. non je dis non je dis ah tey waruma fekk ci mbedd bi may def yenn yenn naka su dul da may yedd parce que sa salaire nga may fay par fin ma mois si lañ may fay am na droit xool ki may àndal ak ku mu dul àndal. d'accord je suis d'accord. léegi Pape léegi li mooy ma ñëw ci. waaw allons à l'essentiel ñu bàyyi Ousmane Yara voilà ñëw ci question man li ma jàpp. Mhm. ma jàpp ne mooy report bi moo ñuy waral lii yëpp jusqu'à yu ay 4 mois ñi ngi ñi ngi jaale ñoo ñu noonu gaañu ñi ngi jaale seen seeni mbokk leen jaale seeni i mbokk ak au delà est-ce que jaral na ko ba ñu tey ñu ñuy wax dialogue ba ñu ñuy wax tey amnistie ba ñuy wax tey parce que déjà man man sama jom bopp je deviens un peu un peu fou quoi je je n'arrive pas à comprendre quest que lii yëpp est-ce que jar na ko. lan dofloo ci dofloo bi mooy fu ñu jëlee mooy ger la ñuy guerre la ñuy jógee guerre conseil constitutionnel. Hmm. ce même conseil constitutionnel la daa taxé de tout son nom def commission enquête parlementaire ñu def lu ñuy def. ñëwaat sens quoi amul ñëwaat. ñu newaat non après dañuy jébbalaat conseil constitutionnel pour mu wax ne tey mandat président fii la yow est-ce que est-ce que réellement mais warul la dof loo parce que yow xam nga ne xam nga ne l'idée derrière tout ça mooy on n'a pas confiance en votre xam nga gymnastique là xam nga ce n'est rien dama ne dama ne ne pas avoir confiance en notre candidat hmm. ça ne pas faire aujourd'hui ñu dugal Sénégal ci guutu goo xam ne xamul fu ma nekk est-ce que tu comprends loolu laay wax parce que aujourd'hui le candidat il a été choisi légalement dañ ko segg segg ko seggaat ko te tey buñ ko tëggaatoon comme ñoom lu ñu bëgg bu ko tëggaatoon moom mooy génnaat. d'accord tegal foofu sa loxo ñu bàyyi Pape mu ah, intervenir Pape allez-y. boo mën sa Pape allez-y boo boo mën sa discours bi ça m'a bizarrement ça m'a un peu surpris parce que dama foogoo ne da ngay aligné comme gars yi ñuy def mais gis naa ne bon. moi par m'a pas surpris je le suis depuis. ok oh, pour koo xamante ne. Euh, si APR la nekk ba nekk Benno Bokk Yaakaar parce que d'habitude ñi nga xamante ne euh, ci parti politique yi la ñuy nekk euh, bon dañuy lu Macky Sall wax la ñuy wax dañuy ñoom ay éléments de rek la ñuy jàpp di di wéy quoi et c'est bien moi je trouve que c'est courageux mhm. et puis boo c'est c'est c'est très bien que mu am benn lucidité parce que li nga wax dëgg la man du ma si contester dara que c'est c'est illogique mm-hmm. que ñu tuumal conseil constitutionnel après ñu revenir di koy di def confiance pour man loolu amul sens et puis bon li nga wax euh, li nga wax dëgg la euh, maintenant bon euh, lu ma si gis rek comme comme peut-être quoi moom mooy est-ce que position bi nga nekk je trouve que bon c'est louable mais est-ce que nekkul euh, da ngay doo fragiliser est-ce que est-ce que après li nga wax yëpp ça veut pas dire que Macky est, coupable par exemple que loi d'amnistie que report bi que Macky c'est le seul coupable. Mm-hmm. oui mais euh, c'est le coupable parce que man je sais que il il doit être coupable parce que je connais la personne de Macky parce que tey. mais vous êtes toujours conseiller. je suis toujours j'ai okay. bi. Euh, Macky Sall ne m'a pas créé je me suis fait toute seule je me suis engagé avec lui en 2008 par injustice avec Abdoulaye Wade il faut que nit ñi di fàttali ko démb pour mën a ñëw. Sénégal nag dañuy gaaw a fàttali. est mm. dama doon xëy bu ma bu ma añee du ma reer bu ma reer du ma ndékki dama dem faay su sama papa sa track la nekkoon si étudié à Clébert donc màgg ci mbedd mi dem yëmbal di comprends. Mm. je me suis fait toute seule en je me suis engagé au PDS avant ça président bu muy génn PDS mu am injustice bi ñun ñu ànd ak ànd ak moom génn PDS. pourtant lorsqu'il sortait au PDS Anna May Ndiaye du PDS la nekkoon. waaw Moustapha Cissé Lo du PDS la nekkoon. feu Aline Badara Cissé du PDS la nekkoon. ñoom Mor Ngom ñëpp PDS lañ nekkoon ñëpp ñu wër président de la République. PDS lañ nekkoon. te pourtant Abdoulaye Wade defal na leen teraanga boo xamante ne ñoom tey Macky Sall tey Macky Sall tey peut-être defalu leen ko. je parle en connaissance de cause mais lorsque nous avons vu l'injustice que mu ngi ñëw dal ci notre camarade Macky Sall ko dem jàppale ko mais mais d'accord mais sama pour foofu tey ñu devons abandonner Amadou Ba parce qu'il est en de subir injustice parce que lan ñu la non Macky moo la nommé. mais mais mais Macky Sall wax nga ko parce que man loo ma gën a intéressé ci question bi est-ce que wax nga ko. parce que xam nga avant report bi oui, bi. Ouais. j'ai cherché plusieurs fois à le voir on m'a fermé toutes les portes. Ah j'ai cherché les canaux pour gis ko j'ai pas je n'ai pas eu le temps de le voir. je l'ai écrit normal le samedi matin le samedi matin j'ai pas fermé l'œil. le samedi du report. le samedi du report j'ai pas fermé le vendredi toute la nuit ku ma xam ku dul jinne seeti naa la ba samay nekk woo la pour que. yàlla yàlla dé génne président Macky Sall ci xelam parce que je savais parce que man y' a trois mois j' alerte boo xoolee sama page Facebook y' a un mois maa ngi alerte parce que je savais tout ce qui tramait parce que man yàlla def na du ma nelaw guddi. Hmm. lu bëri xam naa ko parce que ñoom temps bu ñu ut di ut xaalis di ut leneen man maa ngi ut xam-xam maa ngi ut relation maa ngi ut connexion. di nekk ci lu ma nekk. mais mais Arsène Wi lan moo lan moo. la je l'ai écrit rappelez-vous de votre parole ou vous dites que le Sénégal est au-dessus de votre personne allons en allons et vous en sortirez grand et vous pouvez revenir parce que vous aurez fait dans ce pays ce qu'un président pourra faire en moins de de de de douze ans li loolu laa ko mujjee dernier ça je suis plus loin j'ai écrit à Yoro Yoro Dia Yoro Dia. Yoro Dia ma ne Yoro Dia je Yoro xam na la a moo message je lui ai dit Yoro peut-être tu auras la chance d'être la la dernière personne à voir le président parce que bu communication bu may def yenn kii. Hmm. boo amee euh, waxal ma lii président Macky Sall. mais lan nga jàpp ne moo war a report bi complètement est-ce que lu par exemple exemple question bu. xam nga président xam nga état dafa garaaw état gars yi dañuy xëy rek dañuy créer cinq cinq personnes ñëw song la fii song la fii song la fii song la fii teg. candidats spoliés lañu njëkk teg y a aussi l'argent de Qatar ñu fi nekk parce que tey am na ñoo xamante ne dañoo am na ñu jot. c'est vrai am na ñoo xam ne dañoo changé oto am na ñoo xam ñu ñu ngi ci système bi ñu ngi. Ah, chaque jour ñu ngi wër plateau ak télé di wax ay oto yu bees tàkk la yor ay lu nekk. te jëlewuñ ko président joxu ko jëlewuñ ko suñu est-ce que tu comprends un peu. Mm. y a un autre ah, combat ay député quoi nga bëgg a wax. y euh. yaa dañoo xamante ne mais est-ce que est-ce que kon député yi nga xam ñoo nekkoon euh, assemblée nationale bokk si député APR waxoon ne dañoo bëgg euh, yóbbu li nga xamante ne moo de conseil conseil commission d'enquête parlementaire euh, am nañ ay relation ak Karim Wade loolu nga ne y a des relations pures et aussi derrière nee la y un baron qui alimente mais c'est ça je man xam non nañu sa relation avec Amadou il n'a jamais voulu de Amadou te il a dit qu'il a un trésor de guerre il fera tout pour que Amadou Ba ne léegi non tout le monde connaît les gens qui ont intérêt xam nga seen les Ba tout le monde la connaît président institution la du xam xam xam ngeen ko nekkatul ci gouvernement bi nekkoon na ci gouvernement bi mu ngi ci benn institution toog même fu mu toog foofu il a dit qu'il fera tout son possible tout son possible Ousmane moom jóg na seeti Ousmane Sonko kaso kan ci ñun nag xamuñu Abdoulaye ah, effectivement il a dit qu'il fera tout parce que lan Amadou Ba ne sera jamais président de la République Amadou Ba ne sera rien du tout ici. léegi Pape maa ngi parce que parce que li may wax euh, toujours mooy ça revient des questions de principe mooy xam nga li may wax toujours nee na euh, dafa am ñaari mbir ci dëkk dafa am ñoo xamante ne c'est des problèmes de complexe mooy ñëwaat seen seen seen vie est-ce que comprendre li ma mm-hmm. li ma wax. mooy ñoom jàpp nañ ne. fu ñu juddoo woon ñu fa juddoo fu ñu dëkkoon waruñu ñëw nañ ñëw nañ Dakar est-ce que comprendre nga excuse-moi un peu du terme am nañu xaalis dafa am loo xam ne dañu ko war a def am na xam ne peut-être man nee naa leen bu ma melul woon nii tey sama position bu may jël tout le temps bu ma demee bu ma delloo sama dëkk ñu laaj ma buñ ñu ma nee kii doomu diw la. dañ lay xeeb dañ may xeeb. lu tax yéen nag seen crise bi ngeen bëgg ko imposer Sénégalais yi ko tout la. non dama leen alors que yéen non c'est pas une crise de nous te dans notre crise. président moo ne crise la on va régler d'autres crises et d'autres crises. wala neen dong la. est-ce comprendre non du ñu ni neen dama ne. yéen i neen dong ne ce qui a fait ramener Ousmane Sonko dans le jeu. Fiat, il n'est pas encore revenu non, dans le jeu. Non, je dis il va revenir dans le jeu. Okay. Moi, ce qu'ils veulent. Ça, c'est une... Ce qu'ils veulent. Mm-hmm. mooy ramener Ousmane Sonko dans le jeu, ramener Karim Ouvrir le processus électoral. jaxase carte gi. jaxase même keneen buy jël Ousmane Sonko jël wala keneen buy jël. moo leen gënal Amadou Ba comprendre moo leen gënal Amadou Ba. léegi fi may ñëw ak yow euh, coowalu eh, eh, eh, malheureusement Amadou euh, Amadou Ba xam na leen parce que am na ñoo ne jot na leen léegi donc. fi ñuy ñëw ak yow bu nekkee Amadou Ba la am na ñoo xam ne jàpp nañu ñoom seen adduna yëpp bu nekkee Amadou Ba est président de la République du ñu toog moom ci table conseil des ministres. léegi parce que nag Amadou c'est l'État. fi may ñëw ak yow par rapport ak Amadou Ba ak coow li parce que nag euh, seen coalition coow li mi ngi jóg. bi ñu tabbee Amadou Ba mu jiitee li nga xamante ni moo di la coalition Benno euh, Benno Bokk Yaakaar yow mi nekk ci biir xëy na nga xam li nu xamul ñi nga xamante ni ànduñu ak Amadou Ba. exactement lan lañ koy reproché. xam nga ñi ko xam nga li ma wax toujours dafa am benn clan boo xam ne jàpp nañ ne ñoom APR ñoom ñoo ko moom. kan ak kan ak ab yana Abdoulaye Daouda Diallo Arouna ja ñoom jàpp nañu ne. Farba non je euh, euh, Farba. Farba Farba. Euh, bokk na si ñi buum ak Abdou Mbow non ah. waxuma loolu de Farba mais Farba ne veut pas hériter de ce parti. Farba n'est pas dans. je te parle je te parle de. ñooñu ñëpp dañ leen yóbbaale dafa am fu ñu bokk. ok y a des barons qui ne parlent pas. Ablaye tu vas jamais l'entendre parler Arouna Dia tu vas jamais tu vas jamais l'entendre parler. kon ñiy wax dañ leen di wax. dañ leen dañ leen di yónni di leen alimenter xam nga man bu ñu demee ba menacé de de mort yàggut par par Ablaye Daouda Diallo. est-ce que moo la woo en personne si ma woo la message la boo ma. bi la la la wax. dama ne Omar comme da ngay re reewante ci ëpp làmmiñ dinañu nangam taan dinañ la jàpp dinañ la la dóor lu ba rey la. un message direct moom moo la. non il m'a appelé téléphone il m'a envoyé un message direct. ok parce que je l'ai envoyé message pour lui rappeler ses propos il m'a dit dinaa la dóor ba rey la en pulaar. mais je l'ai répondu en pulaar que da ngay wax lu la neex. lan la la wax en pulaar. mooy moom fii xam maaya ma waddi yimɓe ɓe piima ha maaya oh, dinaa la boole ay nit dinañ dóor ba bëgg a dee parce que jàppale ne chômage la xam lu tax <laughs> xam lu tax <laughs> ah. parce que dañoo jàppale ku ci nekk ci ñoom j'ai pris le temps de les connaître man je connais beaucoup am na la xam ne mënu ma ko parce que souvent je ne veux pas mettre mal le président je le mets mal à mais je ne veux pas aller plus mais xam nga li ma wax te dañoo jàppal na ñoom Macky bu fi jógee parti bi ñoom seen ndono la te beneen bi mooy. dafa am beneen histoire bu mooy wax toujours mooy xeebeel bi mooy am mooy ñoom jàpp nañ ne c'est les vrais héritiers de Macky ñoom jàpp nañ ne c'est les vrais héritiers est-ce que comprendre c'est les vrais excuse-moi du terme Amadou Ba Amadou Ba xam nga ñun ñun on a nous nous nous qui sommes nés à Dakar nous avons ce problème là mooy lorsque tu es né au village on te prend ñi juddoo foofu dañu la jàppee comme dañu laa xeeb. c'est ça qui mbirum xeebel la kooku ñëw fekk la impôt domaine jàngal la école nekk foofu sa directeur à plusieurs reprises jàng ñëwaat ci gouvernement nekk sa ministre de l'économie des finances et de la coopération. yow nga fexe ba remplacer te bu koy remplacer direct ministère dañ ko xaaj en deux parce que nee nañ attanoo ko ñëwaat président bu muy premier ministre. jël la jël jël ko moom. donc Amadou tous les compétences toutes pour être là le candidat maintenant ils ont dit qu'ils vont jamais pardonner le président qu'ils vont jamais laisser c'est ces gens-là jaral na ñu def ba président échoué. quelle est la responsabilité du du président Macky Sall dans tout ça le président il est pris en otage par ces gens-là. c'est ça moo ko moo combat moo Omar Sow c'est ça c'est le prise d'otage qu'ils ont pris le président pour dugal ko ci lii parce que le président mérite plus a fait dans ce pays. mais président Macky Sall. ak nit la comme yow président Macky Sall ak li mu représenté mais lan lay xoolee bañ koy prendre en otage. tey je te donne un exemple les gens qui parlent pour Macky Sall c'est des gens c'est les mêmes gens qui ont dit Macky Abdoulaye Wade qui doit faire un troisième mandat c'est les mêmes gens qui occupent qui parle de Macky Sall c'est les mêmes lobbies qui ont président en otage et nous devons faire rapidement aller aux élections rapidement pour que le président puisse être récupéré parce que suñu patrimoine la. ñi bëgg ngeen changer candidat que moom Thérèse Diouf Faye sincèrement. je l'aime bien mais Thérèse Faye Diouf moom devant Zahra Iyane Thiam elle ne di génn Zahra Iyane Thiam moom moo la nekkoon. non boobu xale la xam nga la xam la laa bëgg wax na dal nag xam nga waxugal loolu de dama ne moom bu muy gañee jaareex xam nga jaareex réyul sax mu ngi koy gañee benn xale bu ndaw la gañee te dañoo dem ba tribunal Kaolack pour mun a xolal mun ko xëccal ay xob on les connaît tous mais jàpp nañ ne da Amadou Ba les pro Amadou Ba dafa nekk koo xam ne ñoom ñooñu jàpp nañ ne bu Amadou Ba ñëwee xam nga bu soobee nag quoi qu'on puisse man nee naa man Amadou Ba bu ñëwee du ma boole sax ci équipe am buy liggéey bi parce que je connais la personne c'est quelqu'un qui incarne l'État c'est quelqu'un qui respecte les normes de l'État c'est quelqu'un boo xam ne amul jaar-jaar ak kenn il s'est fait tout seul Grand Dakar la juddoo màggee parcelle jàngee fii lu ñëw comprendre nga inspecteur des impôts bokkut ak ñoo xamante ne Macky Sall moo leen jël bu dul Macky Sall duñ duñ duñ duñ nekk décret ah, on peut on peut dire on peut dire euh, ça aussi que Macky Sall moom moo ko defal promotion que soit mu nekk impôt que soit mu nekk ci gouvernement bi Amadou Ba boo demee impôt domaine ay camarades am hmm. a chef de centre chef de service chef de département mais Macky Sall moo ko def ministre. non non non dama lay non avant loolu dama lay wax. def ko premier ministre non non attends non dama lay non dama mhm. ah, fekk ko mu nekk directeur général impôt confirmé ko. waaw ah, d'accord mais Macky Sall non non non na mais da ko fekk ci circuit. Mhm. defu ko li mu doon tey Thérèse bu dawalee oto Macky Sall la. ah bon déglu ma. Thérèse da nga lay seetaan non dama la ne bu dawalee oto Macky Sall la bu bu amee kër bu jëndee appartement fii euh, yàggut euh, point 1 Macky Sall la bu tabaxee wakaam bàyyi kër googu foofu Macky Sall la bu amee leneen ak leneen Macky Sall est-ce que c'est pas comme nous nous nous sommes fait tout seul dañoo xoslu. benn ñaar ñett ñett nangul ko liggéeykat la. non liggéey xam nga Thérèse Faye man tey man tey gars yi nee nañ dañ ma di ma sànni xel nee nañ jaaykat boutique laa woon man au am naa mérite daan naa jaay boutique sama sama kër gu ma jënd en 2011 euh, bu ma nekkee Gabon laa ko jënd au moins xoslu naa. te jaay boutique moo la ko waaw mais non non jaay moon boutique mais comme dañuy saboté. ah moins man am naa mérite nekkoon naa Gabon di xoslu Moodu Moodu laa jaay naa soow si ba soow pour fay fay sama jàng jaay naa si ab kara soow Cheikh euh, Cheikh Traoré le journaliste à la RTS bu muy def dernier journal bu muy nekk stagiaire guddi la ma doon fekk maa ko doon jaay est-ce comprendre je suis fier de mon passé man am naa passé boo xam ne. Ah, je m'en glorifie ah? ah ma ne tuxu jàmbur nga non waxuma la non non boobu yàgg na non dama la ne pour wax la ne je suis fier de mon passé. ok est j'ai pas honte de mon passé j'ai pas honte de mes parents. ok mais mais fu mu bëgg a ñëw ko moom on termine dans cinq minutes. mais mais moom mooy ce qui est dommage c'est que y a des batailles d'ego entre des clans. euh, au nom de la République et ça c'est dommage au Sénégal que ngeen engagé toute une nation parce que président Macky Sall bu doon wax ci dialogue bi daf daf ne j'engage mon gouvernement est-ce que tu peux engager Euh, votre gouvernement si ay affaire mbiru politique. Mhm. Euh, wala wala wala yeneen yu ne mel ça ça pose problème maintenant lu ma la bëggoon laaj sànq boo euh, après da nga da nga wax loolu moo tax mu rëcc ma est-ce que da nga jàpp ne mbiru amnistie bi mooy loi d'amnistie bi nga xamante ne dañ koy def diggante 2021 ba 2024 ngir effacer crimes yu nga xamante ne yëpp am na fi y compris le président le président Macky Sall parce que bon suñ doon def enquête lui peut-être il pourrait être responsable loolu moom moo tax ñu reporter élection yi. li ma jàpp nee naa la toujours gëw ma amnistie loi de l'amnistie gëw ma ko. mais mais lan moo ko sabab loi de sam na dañu bëgg a dugal xëcaat Sonko wala lan. xam nga man li ma wax toujours dégg naa Ismaël Madior nee na procès Sonko Adji Sarr bokkul mais amnistie kenn du amnistie nit on amnistie des faits. Mm-hmm. Mm-hmm. projet Sonko Adji Sarr ñaata nit ñoo ci dee. Mm-hmm. est-ce que ci taal ñaata station. bu ñu en bu ñu bu ñu indi bu ñu bu ñu bëgg li ma jàpp ma jàpp mooy du présent Macky Sall moo war a woote loi d'amnistie à quelques jours yoo xam ne day dem yoonam. mais pourquoi vous lui dites pas la moo tax waxoo ko loolu. si wax nañ ko ko. yow la moo tax waxuloo ko ko. non man wax non dégg ma de bu ma amoon chance. ñun gisatuñu président mais nan ngay nekkee conseil gis nga ko de yow bu yàggee palais sax est-ce nga di nga dem a dugg. sa bureau bi fa que en fait jël say bagages parce que fa bëgg a dem ñu tëj fekk ñun ñu tëj. non garaawul xam li ma jàpp. mooy loolu génneewu ci président Macky Sall parce que ki jël président Macky Sall tuddee ko doom mu nekk ga saa yi ma xëyee di ko gis di ko yóbbu école donc mais mais je yaa ngi pare mais am nga possibilité dem si président Macky Sall wax ko. ñaan audience mais boo mais ñaan audience wala yi dañ mois maa ngi fëgg waa ji bind ko du def lu nekk. te waa ji faale gisee nañu euh, Europe ñu àndoon ma fekk mission. kañ nga ko gëj gis kañ nga gëj a toog ak moom wax ak moom. su jàkkee ba jàkk événement mars 2021 bu mu demee bu demee ba dëkk bi tàng. mooy nee avant mars la wax. mais nee na gisul saa yu dëkk bi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 Mais lorsque l'article 36 existe, c'est que euh, l'alinéa 2 existe, c'est qu'il y a l'alinéa 1. Ah. Mais lorsqu'il n'y a pas de deux le président élu et, le président sortant. Affaire élection là Est-ce que affaire élection donc, mmh. nous, ça pas.

merci jërëjëf on fait ensemble bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. Hmm? waaw di leen di remercier vraiment. Euh, yéen vous avez mis le feu sur le plateau. <laughs> je sais pas moom xam nga loolu. ah waaw <laughs> ah, mais xam nga tu man j'ai dit j'ai ma liberté ah kenn teewuma fenn ah j'ai ma liberté j'ai toujours fonctionné comme ça. Mm-hmm. donc euh, loolu la ma loolu la ci loolu lañ ma yar quoi te dafa am fu ma bokk nee naa chaque jour am na loo xam ne bu ma ko defee rek bu ma duggee sama biir néeg rek. damay xoolaat dama war a rus amaat gàcce xoolaat sama bopp parce que tamit dafa am juddu nit juddu dafa baax ci nit merci voilà loolu am na mais di remercier ñëpp di remercier aussi waa 7TV ak ñi may yëngu ak waa surtout waa yëmbal waa OSIS mm. may ma suñu journée de la femme bi léegi ñu ngi ci mois de mars bientôt mm-hmm. on a une journée de la femme mars à yëmbal di ci woon. Kumba mi ngi ci suuf dégg nga sooy wàcc nga jaaraale. <laughs> elle est au premier. ok amul problème. Voilà. merci beaucoup moom la dalaloon tey fàttali leen ni que ministre conseiller la nekk itam responsable politique APR fële ci yëmbal ñu ngi lay jaajëfal euh, di la souhaiter nga passer une très très belle journée quant à nous dañuy continuer sunu aventure.